ba noonu lañ ko liggéeyee génne ko waaye gis nga soo demee ba gis dislocation bu am diggante fitra ak mantiq danga koy xam ci nit waaw dangay xam ni kii fitraam ak mantiqam dislocation am na ci te bu ko defee ruux bi dootul coopérer c'est tellement grave moo dal euh, dictateur yu rëy yi nga dégg ñoom it ak ay Staline ak seen fitra ak seen mantiq moo àndatul te kenn du leen faj nag ku leen di faj ñu nu yab rek lañuy ñuy faj ah, ñi nu rek la faj waaye dictateur yu mag yooyu nga xam ne rey cinquante millions ci ay nit safu leen dañu kenn du leen faj parce que dañ leen di ragal te bare na nag ci nit ñi waxuma sax ñoom dictateur yi waaye bari na ci nit ñi ñoo xam ni seen fitra ak seen mantiq dislocation daf ci am te ñu nga jaaxaan ca seen salon di naan seen ataay ak di tëggalu tam xam nga ñooñ kenn du leen faj ñi ñu yab rek lañuy faj te dof yaa ngi ci biir salon yi nag ma wax la ko loolu euh, àdduna bu tukki la moo tax borom bi ku xereñ la xereñam moom ku kontewul ci xereñam rek doo nit waaw ah, ku xereñ la waaye diggante ruux ak fibra ak manque la mu fa liggéey rey na moo tax doomu aadama di tardé rek rab yépp ko raw bu savant yi dee def dara ba découvrir dara di tàccu melentaan yi dañ leen di jéppi dañu naan ñii li ñu découvrir ñun xam nañ ko yaa des siècles seetal loolu moo tax kilifa baax am na kilifa yoo xam ni foo ci toll ñu xam foo ci tollu rek ñu xam ko ba tax na rek di leen bàyyi xel baax ni ndax dañu daan wax ni dama amoon benn maam ma nga dëkkoon ca Nioro waaye ma nga gaañoo fii ci Tiwaawan hmm. ku baax la te xol bi sell mu ñëw seet si ma ñoo man daal dama bëggoon waxtaan ak góor gi ndax dañu ni daal demul màkk te man daal ma bëgg ko digal pour mu dem mag ma ne ko teel cee bañ a dugg mu ni ma man kay li may sa maam rek a tax ma bëgg ci dugg ndax dafa am ñu ko ciy jam ma ne ko jam ma ne ko nit kay bala nga koy jam dangay xam lu ko tee dem mag mu ni ma ko ko wax ma ni ko te soo demee rek nga toog ca saal ba te bañ ko wax dara te nga déglu ko waaye bu ko wax dara mais dañoo agsi ci saal bi mu toog rek góor gi daal di wax ni an nazaru ila wajhil muumin xayru min istiqbalil kaaba wallaahi ndeysaan waaye faf ñibbeetul fa la toog ba faatu moo xam ni ñoom lañu xam ñoo ko xam moo tax ci dugg mukk yàlla xam na ko ah parce que ñun lu ñuy dugg rek feeñ moo ciy dugal te nag loo duggee feeñ du am yool ada bari na ko dem màkka te mbaxan na rek la am doomu mën a am na ku mas tàggu Maodo Maodo neex boo xamoon li xew de li muy demee Makka am na fu mu xaj ñu ne ko tey ñu ko dab wax ko ko mu ne kon mu ñàkk kurusam ndax mbaxane mbaxane mee ko gënal kurus gi ma sax seetal loolu te yooyu yëpp ay échec la rek baaxul baaxul moom te koo ko ci tere rekk ngeen xare ci tere rekk ngeen xare jigéen ji ci mujj dundam mu ni ma leen rekk ma dese damay dem mag ma ni ko tàggoon nga ko góor gi mu ni ma déedéet ma ni ko kon doo dem mu wax wax ma ni ko doo dem ndax ah, tey sëñ Babacar nekkatu fi maa la yilif maa la yeesal kon doo fi jóge waaw ah. moo xam ne pexe amu ci parce que ku dégg ndigal la nag waaw ah. bu xuloog yow baagal sax tàllal loxo li la yeesal waaw yàlla xam na ko ma ko doo dem mukk xam nga yooyu réew mi moom daanaka rek am nañu kilifa amuñu kilifa am nañu kilifa amuñu kilifa lu kenn xamul kenn xamul loolu xam naa di ci bàyyi xel di ci bàyyi xel baax na de dama bàyyi boo xam ne xakim la woon Serigne Umar Sy ñu bari xam nañ doomu maam Mor Xujja la mais mësuma gis mukk yàlla may tontu comme moom benn mbokk taalibe ni ko man daal sëñ Omar damaa defe ni danga ma añaane sama aj gi de mu ni ko lu tax mu ni ko dooma ne mu ni ko at ah, dama mësula dégg mukk nga Muhammad mu ni ko at ah, naa aji na mu ni ko yow de weebu génn ci yàlla xam na ko ni ko loolu kenn mësuma ko dégg kon danga maa añaane sama aj gi ak sama benn najaay boo xam ne ndeysaan ku tëxët la mu ni sëñ Babacar maa ngay dem màkk bu ma ñëwee nag man maa ngay wax lu la kenn mësula la wax wala defalee contrat rek nga xam faafu dem yàlla tardeel ko ci yoon wi ñëpp ñibbisi nettali seen aj ndeysaan mu ñëw xund ba nag góor gi ni ko ah, gaa yi jiital jiitu nañu de mu ni ko ah, waaye lama ma am man kenn ko ndax nuyu naa yonent bi mu jaar ci sama sant mu ne ko noo ko santale mu ne ko ay dara ma ni kii dal moo féex rek yoonam mu ne ko ay dara de laa ko sant mu ne ko baax na de aju ayu pour wax la ne aada bu baaxul aada Diop baaxul réew mi aada li fi def baaxul mukk te xam nga Maodo am na lu mu bind ci kifaaya mu indi coow lu rëy ca ndar mooy foofu yonent bi wax ni jigéen ñi daañu demi bay teg jigéenu gëléem ci seen diggu bopp ndax réere seen bopp rek bi nguuka yi xewee nag ñu ni moom la waaw coow la ca ndar kenn xamatul fu muy àkki ñu ni guuka yi la guuka yi la ma ni te ngeen bàyyi ba ca kanam rek moo gën ñu ne ama ah, waaw bàyyi leen ba ca kanam parce que xamu leen luy xewee ci kanam waaye bëgg a condamné nguuka noonu te asinimatul jamal lañu wax loolu kay kaw la jëm te nguuka jëmul kaw moo tax xam ni plus rek yu bari dana xew yu bari dana xew xaw ma nag naka ci pexe xanaa di bàyyi xel ne tabaru jaahiliyati luula ah loolu la di bàyyi xel tabaru jaahiliyati luula ak di bàyyi xel xamiyatul jaahiliya farata piir la te noog loolu rek a nu yàq waaw Sëriñ Aline daf daan wax ni nee na grand boubou nee rafetalul sàppe nee na aada rekk lu ko imposé waaye ne rafetalul sàppe mukk te yonent bi lu rafetal sàppe la wax seetal loolu te itam def ni góor bu dee sol na sol loo xam ne buñ ko bettee mu dëb te bu tëbee fajaaju xam nga loolu garaam bu mënu ko te ñun ñëpp garaam bu bu lañuy sol boobu baaxul loolu xuloon naa ko ba tey temps yi ñu may teree yëre tubaab man leen moo tane grand boobu fuuf ñu wax wax góor gi ni ma waaw waaye dangay bàyyi sa xel ci Maba Jaxu ak tubaab yi li ma jànn nga bañ a sol yëre tubaab moom ku mën a xuloo la voilà ma ne xanaa loolu bokk waaye grand yi bi baaxul tabarkal la tabarkal la amoon naa benn mbokk taalibe ku baax la ku bëggoon grand buubu bu ñu gome gome noonu daf ciy kontaan ni ma ndax seet lu nga ni bu ma amee aslëf julli tëxët lay julli en tout cas mosuma ko seetlu de di ko seetlu rek boo gisee ma julli julli tëxat rek c'est que damaa mas lëf ma ne ko nu ñuy jullee julli tëxat mu ne ma damay sol baxa bu ñu gomee moom lay sol di tëxat tëxat lu mel ni borom barke mu ne ma waaye bu ma amul dara mu ne ma julli gu ñàkk fayda lay def wallaay ndeysaan ma ne ko yow daal yaa rek mu ne ma am ah, pexe amul wallaay ndeysaan waaye fekk na rek liggéey moom dafa baax dafa baax de hmm. ko def rek diko def mom ba yalla ubbil bunt man toujours dama koy nettali di ko wax parce que dama dana bay dana bay dana def commerce dana def transport yooyu yëpp waaye ma ci def ñaari yoon ñett rek ba xam la ca ne toxu ca la des dama ci jang sama àlluwa laa ci jang walla yalla xam nako àlluwa rek àlluwa rek te bañ a teyal lu am solo la ndeysaan jotaan na mbokk yu bari dañuy tawat rek tawat amuñu bunt amuñu bunt amuñu bunt waaye ku làmbatu bu yàggee nga am bunt waaye liggéey moom farata piir la ëpp naa ñàkk def sax mm-hmm. yàlla xam na ko ndax moom la Serigne Cheikh daan wax moom ku am jitte ci téye kër la tabarkalla ku ko fonk la waaye comme dañ ko tuddee Abu Zayd bu jógee rek dafay wax taarajtu la rahmatan walla araj walakin li aqraa baabal faraj xam nga kooku ñu ngi doy na waar la sidna Abu Bakar biñ ko jiitalee li mu jëkk a jotee jullit yi azaka la

soo tax rek ñu mujj bañ ñu xarees euh, reyante kenn xamul li ci dee ci nit teetal lool ba moo tax rek liggéey moom ëpp naa ñàkk def ëpp naa ñàkk def tabarkal tabarkal yàlla amee barke nag waaye itam système yi li ñu yàq dafa bare dama doo wax na ko ndax dafa am bés xam nga Maodo yitteem dafa ëpp waaw moo waxoon tubaab yi ni leen man ngeen ubbi école yi école tubaab yi man ngeen ko ubbi bu ngeen ma laajoon Babacar ma jox leen ko da jiitu naa leen ci moom te loolu rekk am solo yàlla àtte bi ñu defee école yi bu ñu commencé jàng mu dem di dañu kumpa parce que noonu lay def ba mu dellu see mu ne ah, njaaxum dugg na ci ndax taxaw naa fa tubaab yépp ñëw jël ci seen doom tey ci seen loxo yóbbu waaye gisuma fa benn boroom kër bu ñuul bu jël ci doomam tey ca loxoom yóbbu te loolu désordre rek lay indi ci réew mi seetal loolu waaye la mu waxoon yépp mujj na am moom mbiram noonu la affaire gerte gi gis nga li mu ci waxoon <clears throat> dafa daan dem ba ci bitig yu mag yi di seet bu tere taxawee nu ñuy jaaye wante bi ko tubaab yi waxee ni baykat yi dañuy yàq seen xaalis mu ni leen déedéet yàquñu ko ndax jaayaguñ ko dañ koy nangu ci ñoom parce que dafa daan seetaan ni fi ñuy jaaye gis ni ni ñu ko war a jaaye jaayewuñu ko noonu moo mu ne du ci waxante sëñ Babacar bi ñu ko waxee ni ko pour mu waar nit ñi ñu wàññee naan sàngara mun leen am na lu gën a gaaw ñu ni ko lan la mu ni ngeen bañ fee indeeti sàngara dong nag boobu gën a gaaw te wax na dëgg ah waay loolu rek mooy li nga xam ne moo ci gën a gaaw melni bu nu amul won kilifa góor hmm. gi Babacar Diom jom nee na ma bu nu dajewul won ak sa mam dinañu toj rew mu ne ma la ko wax mu ne ma ndax dañu di ndaw te fi te bëgg bakkan mu ne ma dañ daan sol njëllu yu nga xamni dañ ci nas ay jaaro peme di ci nas ay per waaye ne loolu kenn mës ko gis ne di sëqal sunu bopp yi di ko rasta ah mu ne bu ñu dajewul woon ak Maodo rek àdduna tukki ne benn bés nag ba di ko nuyu si ndeysaan mu ne mu ne ma ku baax la mu recevoir ma di waxtaan ak man waxtaan wu yiw nag nee na waaye dama sàcc dugal sama njëlli ci sama biir mbubb bugguma mu gis ko ne may jóg rekk sama oom lonk ko mu dagg nee na may xaw ma woon ni tiitaange dina def lool ne ma jóg rekk wàcc fa jax ma wàcc fa njël ba nee bay bëgg àgg ci bunt bi mu ne ma Babacar ma ni ko sii mu ni ma kaay jël sa càq nee na ma ñëw rekk xam ni mag du sol càq ba jël njëlli ba génn rek dëbb ko ba mu mokk ma suul ko waaye ne li nu dajab moom ah ne boobu nun ñëpp dañuy soqal bopp wallaay ndeysaan waaye mu ne ma ku tey la su ku am dogu la moo ñun moo ñun ba ñu génn ci yooyu yëpp tabarkalla tabarkalla parce que dafay bañ ñu dellu ca abraha dafay bañ ñu dellu ca abraha ak i bokkam yooyu yëpp pour wax la ni ñoom seen yitte ëpp na te seen yitte moo moo téye réew mi seen yitte moo téye réew mi tabarkalla tabarkalla mas naa ci waxtaan ak góor gi Njaay Juuf moom moo jur Abdu Juuf Alaaji may sa sekk ñëw fekke si ko ñuy waxtaan nag ci aada ci réew mi mu ni ma ji may sa ni ma dégg naa ci sa pap Sëriñ Bachir mu ni sa maam Serigne Touba daf daan wax ni ñaar sopp ko ci njaboot njaboot gu yuur ga tuuti te gémmiñ gu gudd nee na dafa tasaab bi te wax na dëgg loolu rek mooy li ci nekk ndeysaan góor gu xeroon ci Abdou Diouf ngo waaw bés bu ne bu ñëwee rek ni ma Abdou sa njaboot la de walaay ndeysaan bu ñëwee rek ni ma sa njaboot la de ma xam na ko sax nangam nangam yàlla xam na ko moo tax Abdou bés ni ma mais wax naa sama yaay ni ah, at mu jot na la rabul mbubb ndax li nga demee ci dem dem yi <laughs> ma ne ko ah, kon de baax nga wallaay ndeysaan wax naa ko ko ne na ko at mu jot na la rabul mbubb ndax ni nga demé ci ndemé dal di bëgg tuddu safiye tuddu ay dama ni ko dess na mu ni makkan ma ni ko bint sire ma ni ko bint sire bajje non demé ni yëpp mu ni ak ko ko dégg ma ko ah nga top ma ko mo gënd di ndeysaan jigéen ju amul morom ca dara Cheikh Al Hadj Omar moo waxoon bi Abdoulaye ni ko jël ko ko jël ko bu ko bàyyi mu ko jël ko ndeysaan moo jur Alaaji Abdu Kan yàlla xam na ko waaye moo wax naa sama yaay ni ko ne la ràbbal mbubb parce que nangam nangam wax waxi tëxët yooyu waaye ñoom ñëpp suñuy bokk lañu nag tabarkalla xëy na politique a demee nen nañ le rek waaye ñoom ñëpp suñuy bokk lañu bu nu yaboo rek di leen jàppale ak di leen ñaanal yàlla du dëgg yaboo di leen jàppale te di leen ñaanal yàlla ndax bu bëggee yàqu ñu wax leen ko dama toog rek gouverneur du Sénégal woolu te tubaab la woon ma ñëw mu ni ma réew mi day ci soppeeku la jëm mu ni ko ah ni waaw dal dindi constitution bu bees bu ñu bind ci arab ak France ni ma jàng ko ma jàng ko mu ni ma loo ci jëlee ma ni ko ñaar de bu ñu takkuwul daañu ñàkk seen cër mu ne ma kan ma ni ko sëriñ ak chef de canton mu ne ma yow gis nga affaire bi ni ma est du baax nga jël contact ak sëriñ si pour informer ma ne ko ëpp naa def oh, mu ne yàcc di ma xool wallaay mu ne mu ne ma looy def nag ne ko damay jël sama responsabilité rek man à mon niveau ma ko bu yàggee ba yàgg foog ñu wute walla ci sëriñ si mu ne ko bu ko defee rek affaire bi saafara ma ne ko ay chef yi nag dinaa seeti koo xam ni maam la ci man bàyyi na ci man wut googu ma koddu sal te Kébémer ma ne ko am naa ko seeti ma dem seeti góor gi ma ko dosal la ñu ko am ah, bàyyi mbaa bàyyi ngeen seen xel ci seen bopp dal di koy wax wax wax xam naa moom xam nga moom kilifa la te mënul woon janeer ni réew mi dafa soppeeku mënu ko woon laa tëdd rek mu ne ah kii de li muy dox maamam daawu ko dox waaye bi yëf yu soppi ko nag mu wax jarbatam ni ko demal indil ma Cheikh ni ko defe na xawna tabbi tuti tuuti ndeysaan pour wax la ni rew da way soppeeku waye du te ngay jël ses responsabilité lolu motax ba ñu demee daje ji Cotonou ni dañu ñaan indépendance man d'accorduma ci parce xam naa ne am amaguñu ko nu mën a yilif te yéen seede ngeen la sëñ Babacar wax ca gàmmu wax ne nañ ko bàyyi mu conserver nationalité française loolu mise en garde la ci ci ni moom te waxu ko ci biir nekk xanaa dem ba ci jumaa ja wax ko loolu c'est tellement sérieux loolu mooy gisaguma ku ma mën a yilif waaw gisaguma doom bu ma mën a yilif lool la lool la firi muy guddi gu mu wone boppam waaw te dama jaaxle sax ndax dañu dem ba ca buntu jumaa mu ne na ñëpp wàcc ak boobu mi ngi ci benn oto bu mag yëpp wàcc bay bëgg a wàcc mu tëyam maag moom rek ci biir oto bi mu ni man de dafa am benn déclaration bu mu bëgg a def ci jumaa ji ma bëgg ñu bàyyi ma ma conserver sama nationalité française ma ne ko bu ko def mukk mu ne ma bu ma ko waxati mukk man lu may def rek fekk na ma diisoo ceeg sama am ba noppi ko waxati mukk dama koy wax parce que sama farat daal di dem ci jumaa ji ko tànjam lu ma ci loolu moo tax nu daal di ngemb bi intellectuel yi dajee Cotonou def seen déclaration bi ñuy laata ñëw fekk na ma def sama bos bu sawaanoog seen bos seen góor ñëw te ca la bokkoon ni ma yaa am raison ma ne ko loolu bu ko waxee rek yem ci bind ma ko mu bind ma ko والله ما قال لي تبي وبنما نما يا عمري زو ساجي سو بابا كرسي مولا اسبيري نما موت سخبرانت ونما فانيو داجي وان لنج فدون وخاي بيتي زيكلا والله القران العظيم لتر بوبو مسناكو ابل سخ وا اليزي باسكو دنجكو زولون بوب بتاي رك لو جوت ني جيل سي سوني responsabilité Terus keduanya dah Dah wàññi dara dara la ni lalu rekit. Farah la te boole koog liggéey nag te boole koog liggéey am na bés ba di ci waxtaanu góor booba ci àll bi rek laa nekk booba maa nga kër góor gi njawar cuun maa nga mbooro maa ngee bay maa ngee bay gerte maa ngee bay dër lu ne maa nga ca ndax dama am najaay bu ma ci xiirtaloon Alioune Kane wallaay ndeysaan waaye sama tool boo woon ci kër Njawari Cuun moom noon laa ko ñàkkee ndax sëñ Babacar daf ma ci defal ñaan rek ma dem sotti ko ci pax ma pax ma génne phosphate loolu de kenn mësu ko gis mooy phosphate bu ngeen di dégg maa ko moom yàlla xam na ko maa ko moom de bés bu ne autorité yi ni ma sa yëf la wallaay danga nga gàttañ lu rek ma ne ah gàttañ lu ma dama amul doole wax dëgg yàlla bés bu ni ñu wax ma ko am na ko fi toog sax maa ngi janoog moom wax na ma ko bërki dem ni ma dangay bàyyi noonu sa yëf yi rek ma ne ko ah aw ma doole donc daara la yàlla xam na ko ba ci seen bi ngay gis ah waay li tax mu bloqué maa ko xam maa ko xam ah Senghor dafa dem ca iranien ya ni ñu tabaxal ko dëkk ñu commencé di dox loolu ba muy posé première pierre bi te ci ñi mu ci jëkk waxtaanal ca la bokk muy posé première pierre bi invité wu ci ma gis ko mu ni daal dafa ci xelama jaxasoo mayu ko kon di dëkk bi du am ya mu ne ko parce que nag dañ ci waxtaanoon ba sori ci waaye dëkk bu mu julaam non Chadiran ba dañ ko def coup d'état te ma ko waroon defaral sengo mais ICS allemand yi ñoo ko liggéey projet bi maa ko xam toog nañu ñetti fan ca gore di ko liggéey yàlla xam na ko waaye mu ngoog rek yëf yaa ngoog te am lu ci ne dang cey dox sa wal dang cey dox sa wal bo buñ la buñ la randale it nga randu rek la ci xam ndax talibé mo buñ ko randale it mu rand way am na ño xam nit ah léeg-léeg ñoo am kilifa gu leen protéger du de léeg dafa yam te gor gu maggi gi ma daan wax ni ma yaay sen tour wa yaay sen tour walaay ndeysaan ay seen tuur ay seen tuur de ma ni ko nga ah, xam ne ma waaw loolu la gëm naa ko bu baax na mel ni kon taxawaay rek nag ak di ñaan ak di liggéey waaye lu dul priorité nag jaru ko jaru ko de ay itam dem ba nekk otage kenn du ko nangu baaxul te système bi ci boppam moom baaxul système bi moom adduna bi moom baaxul da ngay gis ni boo duggee ci entreprise walla lu mu doon dañu lay mujje jàppe otage par force nga jaar fi ñu bëgg kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis ma wax na mas naa ko wax ab Abdou Diouf mu ree ba tëdd ci suuf ni ma yow daal yow yaa féex rek ma ne li ma wax dafa am ma ko parce que investir ay milliards ci mbir te bo buggee 10 millions boko ko do doo ko am loolu kenn mësu ko dégg waay seetal loolu mooy système dafa soxor dañuy def nit ñi otage te yàlla waxoon yonent bi ni ko bo boo tëralee affaire monnaie rek aduna tout parce que fu muy jëm ma dul baax te sëpp sa priorité sa priorité mooy jikko yi defaral jikko yi bala nga fay jóge defaral jikko yi bala nga fay jóge defaral jikko yi bala nga fay jóge mooy sëpp priorité waaye boo duggee ci affaire monnaie gi da nga ciy lam lu ko da nga ciy lab ah, ko boo duggee ci yooyu danga ciy lab moo tax moom jikko rek moo doon priorité waaw seetal jàpp xeetu lëmm ni borom bi def ak arab yi kon daam ne leen rek ñoom ñëpp ndax ñàkk jikko ni yonent bi bu leen def confiance mukk moo tax moom priorité moo doon jikko lu cay tegu soog cay tegu waaye système yi ñoom lu dul jàpp nit def ko otage duñ ko def temps bu leen neexee sacrifier la loo ci mel ni kon nag liggéey baax na waaye itam ah bàyyi sa xel ci sa bopp baax na lu dëgg nga bàyyi sa xel ci sa bopp baax na ñu di ko miinal itam sunu sët yi rek leen ko miinal ñu xam ne itam dara yombul waaye am yitte rek te taxaw yàlla am na ko tabarkalla di ci bàyyi xel ah moo gën de man na ñaari waxtu laa waxoon ak yéen mooy ñaari waxtu laa waxoon ak yéen waaye xam nga boo toogee ak ay soppe doo bëgg jóg loolu la yàlla dogal te ñu fi daje ñëpp ay soppi lañu ñu leen di ñaanal daaw dañ leen ñaanaloon pour fekke ren waaye ren ñu ngi ñaan pour fekkee déwén te déwén ci kàttanu yàlla dàqal nu ren ñu ñaanal suñu kilifa diine yëpp yàlla defal leen leer ñaanal itam suñu kilifa àdduna yëpp yàlla téye ci seen loxo te dimbale leen ñoom ñëpp wax dëgg yàlla kilifa gi ñu ci am sama mu baax ci ñun lool muy Serigne Saliou moom it ñu di ko ñaanal ndax man sama bàyyi la sama kilifa la waaye sama copain la ndax bi mu ñëwagul Touba sax la nekkoon sama copain walaay mas naa dem vacances mu yónnee ma ndaw ni bu ma demat ci vacances mukk naay ñëw ca moom dafa passé si vacances wax na dëgg yàlla xam na ko xam nga loolu jar na lu nekk. la yàlla dogal ah suñu kilifa politique yi la même chose xëy na ñi ma ci gënoon a miin muy Senghor dem na Lamine Guèye moom itam Abdou juf sama copain la woon Ablaye wat depuis soixante la ñu xamante looloo ngi ci ñi ci desit ay doom lañu nekk ci biir parti ba defee rek ñu di leen bàyyi xel ñoom ñëpp avec politique nag politique la tudd waaw dafa bari coow dafa bari coow nag waaye taxasuma li naarit ah na baye xel Baxul. Baxul mukk moo tax yàlla wax yonent bi ñu ko bu ñu xamoon li ci man bu ñu xëccoo man la ñu xëccoo Wala la wax yonent bi lu ko bu ñu xamoon li ci man bu ñu xëccoo man dañu xëccoo wa fi dalik fal yatanafasil mutanafisun walaay ndeysaan wa fi dalik fal yatanafasil mutanafisun xam nga borom bi moom ko bare yitte la walaay ndeysaan ne yamu defar mu mu jag lool ne koy xëccoo na xëccoo lool waaye du tee fii am ñu ko téye kooku noonu rek la di ci ñaan yàlla yiw di ci ñaan yàlla jàmm di ci ñaan yàlla déggoo loolu rek mooy li ci am solo yi ci des yëpp parce que liñ ci fekkee rek bu ñu yeewul dara dootuñu yeew yàlla xam na ko maa ngi amoon benn xaritu tubaab bu baax musuma gis mukk mel ni moom mu ni ma benn yéene rekk moo ma dese woon ci àdduna moo doon xam sëriñ Babacar si ba servir ko waaw ni ma maa ngi triste waaye bu ma sañoon xam ko ba servir ko ma ne ko am ah, moom mu dem teewul nga mën ko servir ñu waxtaane ko noonu waaye am la ci ñoom ñu yéemu ñu baax te xam kuy sëñ Babacar Sérékata mu doon yéene loolu waaye ñoom dañu am kilifa léeg-léeg ñu am kilifa yu dëng léeg-léeg ñu am kilifa yu baax léeg ñu indi kilifa yu am yu def guerre léeg ñu def kilifa yu yu def jàmm nga xam nga guerru quatorze ak deuxième guerre mondiale li ci dee ci ay nit te ay nit rek a ko def waaw ñu kenn xamul lu fi def guerre bu jëkk bi xaw ma guerru quatorze la xaw ma nga xam ne dem nañ cee dema dem ba lu ñu lekk amatuñu amatuñu kawas yi ñu sol sax ñi nekk ci tranché yi mujj di fraternisé allemand yi di waa français yi français yi di waa allemagne daa jaaxle rek léeg-léeg nga gis français yu woo ay allemand ni leen est-ce que amu leen jambon est-ce que vous n'avez jambon ñu ne ah kay am nañ ko demee yaat yu kaka ma ne tali boobu baaxul bu ko defee ñoom it jékki-jékki est-ce que amu leen ay couvert

lu rek yooyu yëpp bàyyi ci xel dafay baax waaye yàlla it léeg-léeg mu indi ko doo ci man dara tabarkal tabarkal lu mel ni yooyu yëpp soo ci ndaw danga ciy bàyyi xel xam ay sët lañu waaye ay responsable lañu ñu di ci bàyyi xel daf ci am benn chef ñëw Dakar ñu ni moom lañu ñu def au commissaire waaye nit ñi ni ko bul jegeñ sax sëñ Babacar Sy ndax dafay def politique léegi mu nga ca Senghor moom it mu ñëw jàpp njàmburam gisul góor gi ma waxtaan ci ak koo xam ni ku baax la fii ci Dakar taalibe waa kër maam Cheikh Saadu Abi la waaye ku ku ku am xel la tabarkalla ku am xel ma waxtaan ci ak moom mu ni ma sëriñ mu ni ko mu ni ma gis nga lu jafe ndakaaru rek yomb Paris mu ni ma mas nga dem Paris ma ni ko déedéet mu ni ma kaay ma organiser le voyage nga dem li ma la wax mën nga régler problème bi te taxaw dal di may boole ñaari tubaab yu nekk Paris téléphoné leen ñu ñëw teeru si ma ci aéroport bër set ñu yóbbu ma ministère de la France d'outre-mer wan ma fa benn tubaab bu ñu wax Roland Pré ni ko kii doomu babacar si la dañu bëgg nga yobbu ko ji nga ñaanal ko audience ci ministre bi mu ni ko jarul ñaan audience na ñëw ñu dem rek mu gis ministre bi ben yoon ñu dem ba gis ministre bi ci taxaway ma wax ko affaire bi ah mu ni ma kooku mën na régler parce que ki ngay wax noonu alxames la fiy ñëw kon nag est-ce que àjjuma di ko mën a gis ma ni ko waaw yàlla te ca àjjuma ja ca quatre heures ma dem jëli Cheikh gay ca cité universitaire Cheikh Gaye na jaay la ci man xarit la ci man ndax mooy cam càmm ñu soxna tabara seetal loolu ma ne ko kay gunge ma ma gis au commissaire dañuy waxtaan maa ngi ñëw fekk ko ma nga sañse wallaay ndeysaan ba mel ni vedette de cinéma daal di dal ci sama kaw foon ma foon fii kañ nga ñëw dal di gentil ni waa ni góor ga ma ne ko ma nga fa tagat daf noonu du ko gis moom mu ne ma soo demee ni ko danaa ñëw këram a daal si fa waaye noonu la ko defee ànd nag général bi ak Thierno Seydou ñu ñëw daal si ca góor ga muy wax nag erreur yi information yi leen di jox te teg teguwul ci teguwaay yëpp mu nettali woo ko seetal loolu ñu daal di nekk xarit xaat yàlla dogal man nag mu attaché ci man laaj ma sama soxna ma ni ko ma nga caawan mu ni ma fonctionnaire la ma ni ko waaw mu ni ma dafa am congé ma ni ko ma congé ñan ñaari weer la am mu ni ma nañ ko may congé illimité te di ko fay am na logement ma ne ko ah non ñooñu logement fii ñi am dara jaa koy am mu ngo directeur de cabinet ni ko na wutal sama soxna logement seetal loolu ci taxawaay xam nga logement ba ku ko mujj nangu Senghor <laughs> bi ma ko opposé mu nangu logement fa yàlla xam na ko Bernard Cornut-Gentille moom ma wutaloon logement ba Senghor nangu ko ma ni lii de kenn mësu ko gis Senghor sama mbokk ba nëpp te moo koy nëpp gis nga àdduna ni mu demee waaye mu mujj ko réccu nag ndeysaan mujj na ko réccu lool bi nu juboo mu dal koy réccu lool sama benn mbokk bu dëkk siin ku neex la ah Cheikh Tidiane de de moom fooli na buur yóbbu faal boppam ma ko ci fayda la bokk de mu ne ma Senghor de fooli na buur yëpp mu fal boppam ma ne ko ci la pour wax la ni yëpp ah noonu la ndax dama benn maam defe naa war ngeen ko miin sax ku baax la parce que maam Serigne Touba la woon waaye yàlla dafa dogal nag ku bokk ak soxna sukkan la hmm. soxna si ku bëgg mbokk la mu ni ma daal su jóge nga dem ca nga seeti ko <coughs> te booba mooy bër siin yàllaate ma àndandoog sëriñ mu nuy roob ñoom sëriñ mammaak xaaju maxtaar ak ñëpp ñu daw seeti ko muy ma maya góor naka laa agsi rek ndeysaan mu ne ah man de bu yàbboo yàlla mu rey ma ci guddi gi ndax sama am Serigne Touba jiite na ma timis sama am Alaaji Malick jiite na ma timis nga ñëw di suma sëtu bopp bëgguma jiite timis nii naa dee ci guddi gi waaw ma ni ko ëpp naa def nag ma ni ko kon dafay mel ni dañu ay gaaf ma ni ko dundal ba ca kanam <laughs> walaay ndeysaan ñu dal di julli timis góor gu baax la maam maye koor ndax dafay mbokk soxnaa sukkan bu métti bu méttee métti wallaay ndeysaan waaye keroog lu ne wax na ko pour wax la ni ah réew mi ci la bokk yàlla xam na ko ki fi nekk di magit dañu bokk ak ñoom loolu taxoon Alaaji sol ni ma est-ce que xam nga loo bokk ak Sëriñ Mbay waxin bu gàtt la te am solo ma ni ko maa ko xam ma ni ma waaw kay loolu rek laa bëggoon a xam ah danoo nekk ci réew mu nga xam ni ah ku safaanoog sa mbokk ne nit dana seulement su ñëw ni daf ko defar te dafay jaay si boppam rek fekk na du dëgg ci moom ndeysaan yooyu yëpp tabarkalla la mag ñi dañu xam fuñ koy jaar dañu xam fuñ koy jaar bu ko defee ndaw yi dañuy faral di triste te baaxul il faut pas ndaw du triste mukk ndaw dafa am njàmbaar deug la nak du def bêtise waye dafa am jambar ba malik mi def ma jël ci ba malik daf ma jël ci ni ma nga waxtaan ak sa mbokk yi ci université bi nak crise bi dafa yàgg crise bi dafa yàgg de ko ñu ko jappal ak ñom rek ñu dem ci université ba waxtaan ak sunu seut ya fa nek suñu cousin yaag dal di koy jàpp nag def ko waxtaan bu rëy tabarkalla ba mu desee vingt quatre heures Senghor yónnee si ma benn délégation Amadou si Dia Maguette Lo ak Alioune Badara Mbengue ni daal mi ngi may ñaan bu ma fa dem ndax wàllu sécurité tax waaw ma ne ko ah, wax ko ni ko foofu daara la te nun doomu daara la te du soxla sécurité nag ñu wax ko ko mu ne kon nag baax na ñu dem fa waxtaan ak ñoom ba ñu waxtaanee ba noppi ñoom daal seen tawat yëpp ñu wax ko seen tawat ci sëriñ si ñàkk ñàkk yitte sëriñ seeg ni ñuy dugganteeg régime beeg nangam nangam ñu di leen jox subvention ñu di ko lekk yooyu yëpp soo wax ndeysaan jóge ca dal ci régime bi wax wax ma ne nañ leen bàyyi ñu wax de bu ñu waxul du baax mukk ko dañ leen bàyyi ñu wax a wax ba seen xol féex moo gën di moo gën de ñu soowa soowa soowa soowa lay ndeysaan ba ñu àggale may te ma ni may leen ma mayit ma wax leen li ma leen reproché moo di yéen da dul génn université bi dem fenn te loolu baaxul xamul leen dëkk bi xamul leen dëkk bi mukk ndax man damay wër rek ci àll bi man at ñaari at yu ne dinaa wër village yi ci Sénégal yëpp te mosuma dajeeg yéen te loolu baaxul kat di leen dem ci àll bi ak di dem ci site religieuse yi di fa ziare ji il faut le faire di vendre subvention yi ngeen di wax kooku risque sunu rek ñun dañuy fay impôt di dañuy fay impôt kon nag risque sunu la. te yene it len di jox subvention di parce que fi baxna na sen université bi ban ah way ye kenn mës na ko kan gis fii de ye ya, so so na ba bu ji ñu ni labb yi leen gën man den ay parce que labb am ñu jabar ñu am na ñu jabar len ayul sa de len lolo tax ñono ëpp jot yàlla xam na ko mu mujj d'accord nag wallaay ndeysaan ñu teg ci fan yu néew ñu dal di dem nag ziare ji Tiwaawan dem ji Tuuba loolu baax na ci parce que xam sa dëkk baax na de xam sa dëkk baax na de Aliou loolu farata piir la ndeysaan góor gi cay wàcc kenn xamul

ma ne ko yonent bi ñaar yëpp la ci am na courage moral am na courage physique loolu la ko yàlla jox ñun nag amuñu courage physique mu ne ma pourtant courage physique a gën a yomb boo amee yett rek man ko ndeysaan ñu waxtaan noonu waxtaan noonu waxtaan noonu waxtaan noonu moo tax fii ñëpp a bokk ñëpp a bokk tabarkal loolu kenn xamul lan la mu mel ni kon nag ñi ci ndaw ñu jàpp loolu te itam ñuy déglu ah ku am expérience ñu di ko déglu ndax expérience am na solo te jamono bi dafa naqadi ci ndaw ndax danga dul dégg lépp danga dul dégg jamono ni mu demee loolu kenn mës ko gis jamono bi dafa jaxasoo jaxasoo ba ñu am expérience sax léegi dañu gëlëm waxuma la ndaw ñi moo tax di leen bàyyi xel baax na lool tabarkal la tabarkal te yàlla yàllaa ngi dogal itam yéen a ngi ànd ak seen responsable moral te bés bu ne bés bu ne tabarkal la mu ngi leen di ñaanal mu ngi leen di taxaw te loolu am na solo yàlla xam na ko ko defee rek ngeen nekk ci boor bi nekk ci boor bi tabarkal la tabarkal yéen a ngi ci seen jàng yéen a ngi ci seen liggéey waye du tey itam njabootu yonent bi ngeen ngeen di bayyi seen xel ci seen bop du dëgg boobu mo gën da jamono bi yépp yépp dafa yaqku dama dem Paris dem ci benn galerie di am lu mu fay jënd di wax ak borom galerie bi mu jékki-jékki jël téléphone bi rek téléphone ma taxaw di bëgg dem mu ni ma dédé bul dem ma ko lu mu ni ma dama am sam benn cousine boo xam ne dafa am doom te doom baa ngi bëgg a wëlbati bopp bi rekk ndax di ànd ak ay xale yoo xam ni amuñu yar meluñu nii meluñu naa te yow da nga wax ak man rekk ma xam ni ci nitu diine nga jóge kon nag doo fi jóg mukk nis tuuti daw si ñëw doom bi mu ni ma waxal ak moom waaye daal na ci yàlla def kenn mënu la ko natt daf cay jóge rek xale yoo ko daan jox ay drogue ak yëpp mu taxali ko yàlla xam na ko ci benn taxawaay la pour wax la ne xale yi ils sont généreux kooku générosité la yàlla xam na ko yàlla xam na ko ci fan yooyu mu amati doom tabarkal yàlla xam na ko ni ma doom bii nag yow laa ko may dangay wut koo ko tudde ba doom ba kinne laa ko tudde ceetal loolu loolu kenn mësu ko gis pour wax la rek ni xale yi foog ñu dimbile leen foog ñu taxawu leen seen générosité ëpp na tabarkal tabarkal yàlla leen ko defal waaye daayira bi it seen cadre la dafa fekk nag seen cër ci na nabi ngeen bokk لايك القوم أصحاب الرسول وأصحاب التجاني وأصحاب ابن عثمان لولا سيرين عادي تولي وخون يلا أمنكم ودون الله جاب دوني ما لين رجلا لين يان تشادنا خلي ناري ويريوني ما يلين بجس لين واو ناري ويريوني ما يمنجي جسل ما عبدو عزيز أك مودو ak Serigne Baye ak Maodo bu Adi Touré may ma ñaari weer yu ne nga dajale leen wax ak ñoom mu ne maa la ko ñaan rek ci barke Maodo ma ne ko may naa la ko yàlla xam loolu wax la ni loolu moo fi nekk tabarkalla tabarkalla la affaire bi noonu rek la demee tabarkalla tabarkalla xam naa yàlla di barkeel rek te di wattu yàlla di barkeel rek te di wattu yàlla di barkeel rek te di wattu nuy ñaan rek nu fekkee ko déwén nuy ñaan itam rek mu ànd ak dal ak dal ci réew mi ak ci xol yi ànd ak dal ci réew mi ak ci xol yi ànd ak dal ci réew mi ak ci xol yi waaw loolu it lu am solo la mu ànd ak dal lu dul lu dul ndogalu yàlla waaw ndogalu yàlla nag kenn mënu ko def waaye li nuy ñaan mooy mu ànd ak dal waaw ci réew mi ak ci xol yi na ko yàlla def tabarkalla yàlla mën na ko waaw lu fekk Maodo nee na buñ ma nee wutalal yàlla sant ma sant ko njuuy ne juy laa koy sànn parce que foo ko tëru ne mu teggi la seetal loolu maa ni sañ na ko sañ na ko de ku bind nit ñi koy sañ nga loolu lu dëgg loolu mooy li ci nekk tabarkalla tabarkalla loolu rek la kon nag yàlla mottali yéene way jur yëpp yàlla itam may njaboot yëpp yoon wu ñu jaar ba satisfaire seen bopp satisfaire seeni bopp nu ko yàlla def xam naa fi mu nekk waaw man di mën naa fi toog ba timi sëtti tabarkal wallaay ndax ku toog ci sa biiri bokk ak ci sa biiri soppe doo bëgg a dem